kuréel bi yor lépp lu ñeel assainissement di ONAS amal nañu niki démb ab réception jumtukaay dernière génération ñu amal ko foofee ca station d'épuration bu nekk Cambérène ci njiitalu PEDRESI di kilifa bi ñu dénk wàllum exploitation ci bërëb boobee ñu nemmeeku ay tuyaux yi ñu duppee anaconda ñu mën ko xayma ci ñaari fukki kilomètres naka noonee ay camions yu ndaw bu ñu sukkandikoo ci PEDRESI tàmbali nañu déploiement matériel yi ci yenn bërëb mu nekk technologie lépp lu nekk ci biir Condit camion yi ñu mën ko déployer ci ay mbedd yu xat comme yi Wakaam ak Ngor Pedres yi di xamle rek ONAS mu ngi avancé bu baax ci wàllum xarala yu yees yi di fàttali rek fii ci ay temps yu néew dinañu réceptionné moto pompe bu juróom junni mètre cube mu nekk ay jumtukaay yu am solo yi xeex lépp lu jëm ci mbënn mi. maintenant su su les euh, ñaar fukk euh, mètres ñaar fukk kilomètres yi xam ne ñoo ñëw na. am na neuf kilomètres ñëw na juróom-ñeent yi kilomètres flexible ñëw na li maintenant li si des mi ngi port donc ma peut-être si semaine wala semaine prochaine dina génn matériel bi yëpp daal mën nañu wax daal matériel bi yëpp li nga xam daal jënd nañu ko mi ngi fii matériel bi nag vraiment li mu ñuy permettre mooy que ñu monter en gamme mooy vraiment bu ONAS nekkoon ci niveau cinq dina dem ba maintenant ba niveau dix Euh, en terme de maintenant de gestion des am na matériel bu ñuy bu ñuy sol noonu mais yooyu mhm. boobu dañ fay dem def trois kilomètres encore ci benn point boo xam entre Pofdi ak ak euh, Kër Kab mhm. def liaison boobu ah, ba pare nag pompe bi benn la ñu jël fii yóbbu ko foofu man maa ngi nii di préparer aussi pour dem euh, fële ñàkk pour xool aussi au niveau kii pour système de pompage bu ñu war foofu maintenant pour mu dépasser dem géej ñu bañ a tutu la grosse donc ce qui fait yëpp ñu koy commencé déployer suñu DG am na benn pour pour yóbbu bi yéen a ko gis xam ne vraiment lii moom musu fi am musu fi am donc vraiment état bi def na effort bu rëy pour jox ONAS ay ay yoo xam ne daal vraiment dinañ mën contre euh, efficacement contre les jeunes vaches. oto yu ndaw yi nekkoon fa rek. waaw oto yu ndaw yi aussi ay camion hydrocureur la xam nga Sénégal dafa am kon yoo xam ni camion yi ñuy gis ni mooy camion yu ndaw yi mooy benn benn mètre cube ba ñaari mètre cube mhm. am na zone yoo xam ni comme ay padois nit ñi dañu tabax yokk seen kër ba tax ni oto bu mag mënul jaar ci diggante boo amee bouchon wala mu am problème boo demee Yoff loolu moo ci am boo demee Ngox moo ci am moo ci am boo demee Wakaam loolu moo ci am léegi mooy mu mooy moo ñëw dugg ci koñ yi koñ yi xam na yeneen yu mag nag yu mag yu xam ne moom mi ngi ñëw yooyu aussi mi ngi ci yoon bi di ñëw loolu mooy nag ci yoon yu normal yi loolu daal mooy moyen xam daal fépp foo xam daal fi liggéey mhm. ah, am nañu ñu mën permettre ñu def ko gis mooy en bu ñu amee loo xam ne dafa dugg ci biir tuyau mhm. ko bloqué ko lan la mhm. xam nga loolu yenn saa yi gas pour toj nag doo def da ngay dóol bi dugal biir mu daw ba fi mu mu photo ko filmer ko ñu xam ne lii am ci tuyau lan la ak fan la nekk ak ban waxtu comme ça ñun bu liggéey di liggéey comme un chirurgien de manière chirurgicale di xam ne point bi vraiment vraiment ci en tout cas pour la gestion des eaux usées. Mhm. ak pour la gestion des eaux pluviales. vraiment matériel bi am nañ daal matériel boo xam ne daal bu bees bu ñëw pour ñu mën a permettre daal ñu engagé. Mhm. Euh, pour être encore beaucoup plus performant euh, dans la gestion des ouvrages aussi bien d'eaux usées que d'eaux pluviales.